quiero que loo si loo maa ngi nii sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. lan la gën a gis si lamb lan la. wax nga dëgg mbër yi ñoom ñooy daw rek xam nga ku fi def onze combats def huit victoire ci ay victoire yu doy waar laa jugee mais mbër yi damay man damay dem ba dootuma xam lan la ko quoi. man maa ngi mujjee ci limousine bu Tëngéej. moom laa mujjee daan bu baax jël bu rëy laa ko laa ko daan. Zarko laa ci teg daanaat ko Zarko. Zarko numéro 2 bu écurie Balla bu noo bu moom laa jël daan ko ci ay victoire doy waar laa toog lamb moo doy waar rek. ba tax gisuñu dégg looloo ma jaaxal moo tax tey jii ma ñëw ci lamb ji barke yonent yàlla ma bëgg waaw gis nga ko waaw xam nga moom sama doomu ndey la moo taxit day defar rek day defar mais gars yi dañ ma war a jël nag pare naa pour ñëpp tout ko koo xam ne def nga preuve pour mën a bëre commando junior pare naa pour bëre ak yow Abdoulahat moo ma yor sama combat yu ëpp moom ak paala ñoom ñoo ko dox wax dëgg yàlla dafa leen ci sant bu baax di leen gërëm nag di gërëm waa Pikine di wax ne leen maa ngi maa ngi ñëw nag. classico am léegi pare nga si. pare naa pour tout. mbër simple ak mbër dur. nañ ma pare naa pare naa pour bokk si. pare naa ma. xanaa xooloo ma. xanaa xooloo ma. yaa ngi. xale daa fee jànkale du jeeg du duranke champion la dama ni doo xaar ah am naa combat ay waay ndeysaan mas ba tamba borom yi waaye nag avant tout damay sant di sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam sant suñu Abdou Karim Mbacke borom maxrim axla rawatina Guya transport ak sama sponsor question di ku man sama sama sponsor lañu ah, dama si lam yàlla ma ko indi waaw loolu amul problème loolu ngeen liggéey ndax doomu sénégalais la dañ ko war a mën a jàppale gi ne ibbi isinam xam la kon xam nga ñoo ñoo war leen jàppale ñun ñun ñoo war a jàppale ah kon yow bëggoo mu liggéey kon yow waaw ah, Youssou sama nit la doomu réew mi li ñu am ñun war a jàppale loo xam ne ni doomu aadama yaa ngi seen liggéey ñoo dañ leen war a jàppale ñu bañ a jàppale naar yeeg tubaab yi man foofu waxee waa kon boog tey bu yaa demee ba ma ànd ak ku yaa tranche ba ànd sondi ku kon damay ñaan yàlla ku sa suñu gën a yokk ba sa Youssou Ndour kon ñooñu mënuñu leen fay barke sëñ Fallou wa salaam. mas wax baaxul ñu maa tere wax. waaye ku ma war ma bëral doole moo man waaw man damay ñaan yàlla yàlla sutural ma quoi. non le premier janvier. waaye xam nga ko ne car am na maanaa. a rawatina apprenti ba.